économique bi diplomate bénévole visionnaire bi ak kilifa diine bi El Hadji Djily Mbaye mi ngi gane àdduna ca Louga en 1926 way juróom bu góor di maam Cheikh mbay ñu gën koo xam si Ahmadou Sakhir way juróom bu jigéen di soxna Xari Touré El Hadji Djily nekk rakk ci sëriñ Sam Mbaye El Hadji Jili Mbay daaray kokki la jànge ba mokkal alxuraan moom ak magam Serigne Sambay bokk ci première génération bu daara kokki ginnaaw loolu moom nag soriwutoon lool ci njàng xam-xam bi comme magam Serigne Sambay ñàkk sori ci njàng xam-xam mi du ne xamu ci lu bari dafa fekk ni ab njàng mi ñuy xaar ci doomu soxna ak waliyu bu toll ni maam Cheikh Mbay bëggoon lool xam-xam El Hadji Djily Mbaye matalewul loolu lépp waaye ku neexoon xel la même Serigne sa mbay daan na wax naan su El Hadji Djily Mbaye continuer woon njàngam konoon ñu fàtte ko moom Serigne sa mbay dafa nekkoon koo xamante ni dafa teel a ñeme engagement bëri dugg-dugg yéwe noonu lool ak tabe sa ba muy nekk tout tànk di jàng sa daara ja loolu waral bi nga xamante ni jàng na lépp lu war ab jullit ngir mu xam diine ma mu décidé dugg ci commerce wajuram di maam Cheikh Mbay àndu ci woon waaye El Hadji Jili Mbay fexe na waxtaan ak moom ci teggin ak yar ba am li mu bëggoon wajuram ñaanal ko jox ko ci ndigal jot na liggéey liggéey yu bari liggéeyu ci mel ni liggéeyu baana baana def na tamit transport mujj ci commerce ci dëkk yi di Fatick Diourbel ak Mbacké ak Kaolack ca Kaolack la ay mbiram commencé di dox bu baax commerce boobu mujj ubbil ko ay buntu yu bari ba mu mujj génn dem bitim réew réew mi mu njëkk a dem di Guinée ci réewum Guinée nag commerce bi commencé di dëgër di métti la ba sax El Hadji Djily Mbaye bàyyi woon commerce ci diiru trois ans ci atum 1950 yi jàpp 60 ci nettali ne nañ ci trois ans yi mu toog deful commerce Baye Djily da doon dugg xalwa di julli ak sabal suñu boroom ci guddi gi journée bi mu yendoo ko nelaw ba sax ay xaritam yu bari yaakaar ni àndul ak xelam ci diiru ñett at yooyu nee nañ El Hadji Djily Mbaye jot naa jàng lu tolloog 1500 kaamilu alxuraan ba mu ca jógee ci la ay buntam yépp ubbeeku waaye ndimbal na ci fekk loxol boroom yeewu teem ci wàllu gestion ak investissement tax na ba lépp lu mu song am ci satisfaction jot na jaar Mali Sierra woon Tchad ak Côte d'Ivoire demoon na sax ba sénégalais yi nekkoon ci réew yooyu yépp moo leen daan jox ay marchandises. ginnaaw loolu jot na dem ci réew mi di France ginnaaw loolu mu jël alalam commencé di investir ci biir réew mi ak bitim réew ci domaine yu bari lu ci mel ni immobilier maanaam jënd ak defaraat kër jaay wala louer ak ci banque yi comme BHS banque de l'habitat ak BIS d'ailleurs bokk na ci ñi nga xamante ni ñoo fi taxawal banque islamique fii ci Sénégal amoon ay action ci banque yooyu yépp investir tamit ci wàllu pétrole ak gaz ak société bii di Tullow Oil doon investir tamit ci domaine industriel amoon ay part ci usine bii di Totexka ak yeneen domaine yooyu yépp mu doon yëngu gën koo ubbil ay buntu ba muy tukki fu nekk ci àdduna bi d'ailleurs bi muy liggéey ci réew yooyu yépp ñu leen limal dafa jege woon seeni njiitu réew ku ci mel ni Sékou Touré président bu Guinée Omar Bongo bu Gabon président bu Niger bu Tchad ak bu Nigeria président africain bi mu gënoon a xaritoo woon ak di Houphouët-Boigny nekkoon njiitu réew bu Côte d'Ivoire jot na ko sax dalal ñaari yoon ci palais bi nekk ca Louga. nekkoon tamit xaritu Hassan II nekkoon buuru Maroc amoon ay relation yu baax ak njiitu réewu Koweït ak bu Jordanie nekkoon tamit xaritu cinquième buur bu Arabie saoudite Fahd bin Abdul Aziz nekk ki ñu tuddee hôtel bii di King fat Palace di hôtel bi nga xamante ni mi ngi tuddoon hôtel Méridien Président ñi ngi ko tabaxoon ngir premier sommet OCI maanaam ndaje jullit yi ci àdduna bi bi njëkk fii ci Sénégal moom El ji Djily Mbaye bokk na ci ñi ci dox ba mu nekk xaritoo ak jege njiitu réew yooyu dune moo ko may alal bi mu amoon ci nettali audience bi mu njëkk am ak Houphouët-Boigny li mu sàkk woon ci moom mooy mu lebal ko lu toll ci un million pour mu liggéey ginnaaw loolu ji Djily dem liggéey ñëwaat delloo ko li mu ko lebaloon ba pare tegal ko ci cinquante mille ndax alal bi mu ko abaloon na da ca liggéey ba am ci bénéfice honnêteté boobu yéemoon Houphouët-Boigny ba mu yëkkati maletu cinquante millions ci yooyu jamono bëgg ko ko may El ji Djily Mbaye bañ ni du ko laala waaye ci am tegginam mu jël ci benn billet dix mille francs kepp xamal ko ni li ko yëkkati woon mooy tout simplement ku ko jàppale mu liggéey Moustapha Cissé nekkoon jamono yooyu ambassadeur Sénégal ci réew yi làkk arab nettali na ni bés bi mu njëkk xamale El Hadji Djily Mbaye ak buuru Arabie Saoudite novembre 1982 li ko Baye Djily mbay wax mooy xam naa ni dinga yaakaar ni liy indi samay moroom yu bari suñuy seet ci kilifa gu toll ni yow moo fi indi maanaam wut alal ak ndimbal waaye demewul noonu dama ñëw bëggoon ñu boole suñu alal ak doole jàppale réewu jullit yi nekk ci ay tolof-tolof fii ci Afrique pare na pour joxe 10 millions de dollars maanaam 3 milliards francs fa ci jamono yooyu si ay tukkeem ba léegi El Hadji Djily Mbaye mës na di dem France tardé mais ak reconnaissance bi mu amoon au niveau international taxoon ba compagnie bi moomoon avion boobu retardé vol bi bi mu ñëwee gis passager yi mer lool teg taxi di xultu ngir bañati lor wala tooñ kenn ci ginnaaw tukki boobu mu mujj jënd avion boppam jet privé ci mbaaxaayam daan na yóbbu sax ay étudiants yi daan jànge Maroc ci avion wam boobu te duñu fay dara. Baye lii dafa fonkoon lool njàng ak njàngale lycée Malick Sall bu Louga moo ko tabax def ci 400 millions bi nga xamante ni ca Tamba parents yi ak professeurs yi génnoon nañ di ñaxtu ndax seen doom yi ku ci jàng ba def entrée en ku si amul moyen wala mbokk si région yi leen gën a jege sa njàng day mujj yàqu bi ko Baye Djily déggee ci la fa tabax lycée def ci 600 millions lycée boobu tey di lycée maam Cheikh mbay bu Tamba ñu tuddee ko way juróom bu góor professeur Iba Der wax na ci jëmu boppam ni jamono yi nga xamante ni moo nekkoon jëwriñ bi yor njàng meek njàngale mi élèves yi ak professeurs yi doon nañ grève ndax soxla lu toll ci 2000 table-banc bi mu toqee ci nopp El Hadji Djily Mbaye ci saa si la ko woo téléphone ne ko mu dem Sismar commandé lim bi ni toll. yamul foofu rekk. professeur Iba Der Thiam waxaat na ni bi nga xamante ni inspecteur yi ci enseignement arabe bi ñu ngi doon kaas ni dañoo soxla ay oto pour mën a def seeni liggéey ni mu waree El Hadji Djily Mbaye daf ko jëndal lu toll ci douze voitures Peugeot R12 mais ci waxu professeur Iba Der Thiam ba tey mu ne waruwaay yooyu seeni boroom mujjuñ see jot ndax laata mu leen kay jox dañ ko jëlee ci ministère ba ki ko fa wuutu woon jox ko yeneen service yoo xamante ni soxlawuñu ko. ci njàng ak njàngale ba tey bay Djily tabax juma ju yanji bu ànd ak bibliothèque jagleel ko magam xaritam Serigne Samba yi fële ca Louga daara Koki bi mu jàngee tamit mu yore leen lépp. El Hadji mbay fàttewul fi mu juddoo. gendarmerie bu Louga moo ko tabax hôpital régional bu Louga moo ko tabax stade Alboury Ndiaye bu Louga moo ko tabax gouvernance bu Louga moo ko tabax logements sociaux Bagdad ca Louga ak ay usine ci jamonoom El Hadji Djily Mbaye li mu tabax ci ay juma ak i jàkka kenn mënu ko lim jàkka kër sëriñ Louga def jàkka ca Louga Thiamène ak Ñomre defaraat grande mosquée bu Louga juma El Hadji Malick Sall ci biir Ndakaaru mu daldi yeggali zawiya xaadiriya ak zawiya El Hadji Malick Sy en 1975 tabax ay jàkka Mermoz Yoff Gibraltar Sicap Serigne Cheikh ak Castor dugal loxoom ci tabaxaat jumaay daaru musti jumaay tuuba defoon ci lu toll ci 800 millions ci yooyu jamono ak kër mag moom jàpp tamit ci defaraat jumaay tiwaawoon tabax juma ca Congo Brazzaville ak frontière Sénégal Mauritanie may leen ko El Hadji Djily Mbaye amul woon sens interdit ci benn réew ak tamit suñu tarixa yi moo tax ba waayu ñépp la woon ku ci mel ni sëriñ abdul axaat mbàkke sëriñ abdul xaadir cheikh ahmadu mbàkke gaynde fatma nekkoon tamit xarit lool ak sëriñ abdul aziz si baax même ci suñu mbokk chrétien yi tamit xarit la woon ak évêque pierre sagna bu saint louis si wàllu social bari na ñi mu jàppale te kenn yëgul même premier ministre Mohamed Boun Abdallah Dionne wax na ni su demee ba continuer jàngam ca France El Hadji Djily Mbaye moo tax ndax ay relation yi mu amoon ak waajuram bu góor bëri na ay dëkk yu mu tabaxal ay forage may leen ay machine ak ay jumtukaay yu ñuy bayee teg si tamit di leen dimbale si wàllu jiw ak lépp lu ñu soxla ci wàllu dund muy ceeb dugub ak xeet gu mel ci jamono bekkoor ak lu ko wees El Hadji Djily Mbaye li mu def ci Sénégal ci wàllu investissement ak defar te xaaru ci kenn du gouvernement du politicien lu dul fayub yàlla sunu boroom amul kenn ku ko mës def fii ci Sénégal te pourtant Baye Djily jaarul école française Asamaak def ay études ci commerce wala économie ci biir région de Dakar li mu fa yoroon ci ay immeuble ak i kër mëneesu ko lim yépp waaye bokk na ci building des allumettes immeuble Fayçal cité Djily mbay cité Fayçal ak yeneen El ji Djily Mbaye mësuta xeeb fi mu jóge di Louga ndax fa la tabax kër officiel bi muy dalalee ay ganam di paleem bi nekk ca Louga Fête de l'indépendance 4 avril 1982 Baye Djily desee dox xarci tànk tubayam ba convaincre état bi fi nekkoon ñu amale ko biir Louga nekkoon feetu indépendance bu ngande bu neexoon loola boo xamante ni benn la fi histoire réew mi. El Hadji Djily Mbaye mi ngi génn àdduna le 14 mars ba muy am 64 ans. El Hadji Djily nekkoon ku woyofoon lool daan dimbalee jaamu yàlla yi sans boole ci wax daan jël lu mu xamul nu mu toll jox ko mu xamul fu mu jëm daan na wax naan su la ab màndikat ñaane xaalis nga ne da koy màndee ba tax na mayoo ko ëllëg dina xiif ñaan la nga bañ kon su deewee xamal na yaa ko rey ay jëfu El Hadji Djily Mbaye ko tënk ci benn vidéo pour ngeen gën koo xam dëgg-dëgg dañ leen di suggérer ngeen lire livre bii di El Hadji Djily mbay la saga d'un milliardaire ki ko bind di benn écrivain bu tudd Mansour Gaye livre bi nekk plus de 200 pages pour rek ngeen mën a comprendre dimension générosité El Hadji Djily mbay maanaam mbaaxaay ak yërmande wu El Hadji Djily Mbaye dañuy tàggoo ak yéen ci li nga xamante ni ñi ko gënoon jege wax nañ ko ci moom ne nañ El Hadji Djily bokkoon na ci ay yéeneem jënd Senelec ak SDE pour teggil sénégalais yi coonooy fay courant ak ndox lii moo nekkoon tey vidéo bi di leen jox dig daje ci yeneeni vidéo jaa ngeen jëf